Assalamualaikum ya ñi ñuy seetaan ci rimpost.com point ngi am bekté delu ci tay pour recevoir benen invité Sénégal nak day réew mo xamni bis bu ne wax politique waxu politique ci sax dafa bari waaye dafa rar ci réew mi ñi fi wax kom gis réew mo xam dañuy tok di wax politique di wax politique di wax politique bam xey suba jëm karam waaye gis na réew yu bari yo xamni dañuy xey suba di wax kom kom di top top kom kom ba xey suba jëm karam donc dama jàpp ni politique mënta yóbbu fenn am réew koom-koom moo mën a yóbbum réew moom nit koo xam nag dama ko seetlu ci Sénégal muy Mamadou Djigo di directeur généralu agence nationale de la ménagement du territoire maanaam ki ñu dénk ci biir réew mi ci suufu Sénégal gépp mu xool nu muy def ba koom-koom ak naataange tas ci réew mi damay déglu nag moom ay waxam moom développement rek lay wax zone yi ci Sénégal yëpp muy Touba muy Sénégal oriental bu nekk mu joxe xalaat yoo xam ne jàpp na ne bu ñu ko defoon tey réew mi mën a jëm kanam loolu tax mu intéressé ma nag ma invité ko tey pour mu wax ak Sénégal wax leen naka lañ mën a def ngir koom-koom réew mi jëm kanam Mamadou Djigo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Yérim. question bi ma lay njëkk a posé dama dégg yow nga ni ndaw yi di wut xëy mën nañoo wut wutal xëy lu mat benn million nit ci ñoom. loolu noonu ko mën a pour loolu madame Je profite aussi de l'invitation de invitation bi di le remercier bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi Sénégal man yàlla dafa def euh, sama aménagement du territoire développement territorial léegi nag euh, président de la République son excellence Macky Sall gagné réumi Je mu à agence nationale de l'aménagement du territoire nga ci doon liggéey ci gën a ci France. voilà moom mooy sama sama métier. Mhm. mooy sama passion. moom mun naa wax ne ne mooy sama dund en quelque sorte. yàlla def aussi tamit bi ñu bi Sénégal président hérité Ben réew boo xam ne constat yi ñu defoon ñun constat yu difficile la won. Mhm. parce que euh, dañu nekk réew moo xam ne ne dinaa ko xaw a wax ci français tuuti pour que nit ñi comprendre. Euh, pour que mon mon ko wax sax mooy que dañu am dañu ñëw fekk une économie de niveau très primaire euh, une économie très extravertie euh, une économie bo xamné né euh, métier yi système productif local système productif bi dafa rudimentaire. waaw manam dal da ngeen fekk comme comme bo xamné ni nit ñuy defee xarala yi dafa dañ ko weesu aduna bi daf ko weesu. bu yaa daf ko weesu voilà. bi ñu xoolaatee li ko waral ñu gis na ne euh, système éducatif bi. jàngale mi jàngale mi moo kalewul ak euh, li économie mondiale bi di doxee fi ñu toll nii. Mm-hmm. bi ñu xoolaatee aussi tamit ñu euh, ñu gisaat par rapport ak territoire yi niñ ko daggee niñ ko organiser mu am ay jafe-jafe yu bëri. Mm-hmm. ci la waxee nag toog suñu bureau yi. di defar liggéey bi du loolu moom mooy avance loo mbir mi di avance loo mbir mi mooy nañu wër réew mi yëpp dugg ci gox goxaat yëpp wër magasin yi wër marché yi wër wër fépp pour xool ba xam sénégalais yi li ñuy dundee li ñuy sol li ñuy naan li ñuy def yëpp fu ñu koy jëlee ñu mm-hmm. xam ne ne mooy li ma doon wax ci économie extravertie ñu xam ne ne li ñuy dundee yëpp yëpp quasiment ñu koy jéggaane bitim réew lay waaw bitim réew lay jógee dëgg la mais bi ñu xoolee territoire bi bu nekk li mu am ñu gis na ne territoire yëpp dañu bëri ay ressources te am na yoo xam ne ne dañuy dem di ko jëndi muy cher alors que euh, matière première bi mu ngi foofu noonu dëgg la waaw ce qui fekk ne nag euh, maanaam daal pour euh, xayma ko am nañ dénk waaye ñu ngi jëndi meuble voilà exactement mais li ma bëgg a xam mooy xam nga benn million liggéeykat liggéey loolu du lu du lu yomb a defar du lu ndaw tey lan moo ko mën a indi waaw ah, li ko mën a indi mhm. mooy que comme par exemple li ma doon wax mun naa ko jël si wàllu weñ weñ waaw mooy le métal mhm. comme li ñuy wax tey euh, matière bi ëpp lu muy liggéey loo nit métal la mais soo ko xoolee su suñu réew euh, mooy li ma doon wax ci euh, diagnostic bi ñu trouvé woon dañu gis ne ne euh, métier bu ñu ethnicisé suñu biir réew mi la. dañ naan ñii kese ñoo war a liggéey affaire métal. waaw mooy tëgg yi. léegi nag euh, affaire innovation. Ah, industrie développement bëriwu fi. dëgg la. te si weñ si lañuy defaree ay ay pont. ci la ñuy defaree lépp. ci la ñuy defaree lépp. te loolu nag ci la ñuy defaree puso yooyu nag yooyu nag yooyu yëpp nag.

biir Sénégal gi yëpp Indiens yi dañ fiy ñëw ak chinois yi di fouiller suñu poubelles yi di récupérer suñu ferraille yi di si defar ay pont ak ay yooyu noonu yëpp ñu ne suñu jëloon région boobu noonu territoire boobu ñu dëje ko lépp luy luy nekk liggéeyu weñ xam nga euh, euh, léegi industrie bu ndaw bi seeratul bu njëkk ba danga doon ñëw gis industrie day mag a mag mais machines moins de 5 millions. voilà moins de 5 millions. nga machines sont de pompe. Mhm. moins de 5 millions nga machines faire ay moins de 5 millions nga am ay machines faire mhm. cadenas. Mhm. ay produits yi nga les produits au quotidien. nga tous les jours dañ koy soxla utiliser suñu biir kër yi. ñu ko de euh, aussi tamit ay ay euh, ay kii yoo xam ne ne yeneen produit yi du ñu ñëw teel ko yàq te c'est faisable. dëgg léegi nag euh, soo jógee foofu tamit mun nga jël yeneen territoire yoo xam ne yeneen ressource la ñu am kaawu Touba. waaw Touba tey boo fa bëggoon a ñaata emploi lañ fa mën a créer ak nan lañ ko fa mën a créer. voilà léegi euh, xam nga man nag aussi tamit damay liggéey lu bari si statistiques yi. Mhm. Euh, bi ñu xoolee ressources yëpp.

consommation par rapport à on s'est rendu compte que da fay bu comme de bu nek euh, ki at bu day a euh ñu gis aussi tamit ay nit yu yu sénégalais ak ay étrangers yu fay jël ay yu bëri bëri bëri à l'étranger mais à l'état brut kenn transformé wu ko. Ah. loolu nag mooy Touba est un territoire de peau. un territoire d'herbe. la. Ah. léegi nag euh, te léegi ñëpp xam monde entier bi jaay ressource naturelle du lu baax li gën nga produit fini mm-hmm. euh, ñu nous de telle sorte que Touba est un territoire de cuir par pare du coup, n'est un territoire de confection de la petite industrie liée aux produits dérivés de peau. maanaam lan ak lan ak lan ci der yi nga defar ci dal, defar ci dàll. waaw defar si ceinture. waaw defar ballon de football yi ñuy yi football fini, nii. defar ci babouche marocaine yi. ñuy defar ci meuble yi ñuy jaay fi, defar ci meuble meuble yi meuble auto yi. ceinture yi. yooyu yooyu yëpp biñ ko xayma won ci étude yu ñu amoon dañu gis ne ne Sénégal fay doon dépenser ay. Euh,

petite expertise. de pour defar de defar daal mais problème mu Ngaye Mékhé que aussi tamit comme ni ma doon wax métier bu ethnicisé la. xam nga mënoo euh, toute une journée di defar ben dàll. te dalle, boobu noonu yaa ngi koy 3 ay 3000 ba 5000 francs alors que kii yenu saaku ciment bi ñu koy fay 3000 francs par jour. moy que né tamit euh, limay waxone ci archaïsme beug rudimentaire. manam il faut ñu def industrie. il faut ñu def ci lu bare bare bare industrie yi defar ci lu bare bare bare deug la lolu mën légui nak Touba tamit amna ay atu yu bare bare xam nga so jëlé comme magal gi euh, so jëlé comme café Touba ni ñu koy consommer produit bu ñu defar Touba day am labelu Touba bu and ak mom bés buñ ko accompagner euh, ak magal gi nit ñu bari dinañ ko consommer Euh, comme produit non périssable, du nek lo xamne dang koy defar tay soko jaayul des mu yaaxu nit ñi mëna jël ay investir sur lu bari deug la té 380 milliards yoyu biñu ko de 200 000 heures de travail euh, mais soko jëlé nak ak simu France bay yoyu nonu so calcul tourner autour de 22 000 à 50 000 emplois tey boo ko bëggoon développer Sine saalum nooy def. léegi Sine Saloum bi ñu ko xaymaa aussi bi ñu xoolee yëpp gis nañ ne ne dafa am xorom bu bëri xorom day yàq lu bëri mais day defar lu bëri aussi tamit. Mm. exploitation bi su industrielle euh, dinañu mën a comme supermarché yeeg marché yu ndaw yi commencé di ñëw Sénégal et tout ça dinañ mën a defar ay conditionnement yu baax a baax. ñoom ñuy jaay xorom fii ñu aaye xor yeneen xorom yu fiy dugg si ñu jëlaat aussi tamit euh, di jaay Mali continuer jaay Mali xorom jaay Burkina même yeneen dëkk tubaab yi nga xam ne ne ñoom des fois dañu am ay problème mu neige et tout ça mun nañ leen jaay ay xorom pour déneiger tout ça léegi nag loolu dinañu permettre xam nga xorom bu am nekk en contact ak ndox bi da yàq mbay mi su nekkee en contact ak air bi mooy ngelaw mi te yàq suuf yi su nekkee contact tamit ak euh, air beeg suuf bi dina demaat ci souterrain bi dina euh, sale naab yeeg non. noonu loolu moom problème mu foofu noonu léegi plus que ñu industrialiser ko de façon intelligente dinañu permettre ñu ñu def de telle sorte que xorom bi du yàq foofu. léegi nag am na gerte gi foofu. Euh, bëgguma nag wax par rapport ak waa Sonacos tout ça mhm. mais suñ ko gënoon libéraliser tuuti. Mhm.

dañu wax na ne diwlinu bi jóge ci gerte gi dafa dafa dafa am cancer. Hmm. ñu bàyyi ko ñun diwlinu gerte baax na mun nañ continuer di ko defar dindi. li nga xam ne moo ci baaxul moo ci baaxul. Hmm. Euh, am na aussi tamit ay ngeer ay ay rat yu nekk foofu noonu ay euh, euh, garab yoo xam ne ne au quotidien dañ koy defar ay ay thé. mun nañ ko jël tamit di ko def ay thé yoo xam ne ne ah dafa am ay vertu mhm. yooyu yëpp conditionné ko. dëgg la voilà nga xam ne ku ne da ko mën a jënd ni nga mën a jëndee te teewu tubaab bi. voilà exactement léegi li ma bëgg a laaj mooy. Sine saalum boobu yëpp. Mhm. seen xayma bi ngeen def. Mhm. ñaata emploi moo fa mën a juddoo ak ñaata alal la mën a voilà c'est vrai que nag moom moo gën a bi ñu doon xayma. waaw euh, mun naa wax ne ne moom moo nekkoon quatrième si si si centre bi la nekk. Euh, bi ñu jëlee xorom bi jël gerté bi jël li doon wax rat yeeg ngeer yeeg bisab yeeg ba ci dimbu dimb yoy yooyu yépp mhm. euh dépassé won nañ ay 50000 mille emplois yi. dëgg la euh, léegi bu ñu jógee nañ ay 50000 mille emplois dem Casamance. parce que mhm. Casamance ñu bari dañu japp ni moy zone bi ëpp gën riche ci Sénégal. Mhm. est-ce que loolu dëgg la ak fofu nan lañ ko mëna développer légui nak nag ñun xayma yi ñu def. Casamance mo occuper la troisième place amna na raison yu gëna riche. voilà so jëlé Sénégal nga diviser ko en 5 parties. waaw euh, la partie ouest moy partie Dakar bi ba ci kaw. waaw côté Saint-Louis yeeg yoy non moy partie bi gëna riche Sénégal parce que fa la pétrole bi nek fa la gaz bi nek fa la géej bi nek wala la jën yoy yooyu yëpp nekk. moom mooy première partie bi gëna riche. gëna riche ci Sénégal so ko jógee sax ñëw ba ay côté Diogo yoy non circon yeeg yoy non yëpp. ban mo ci top bi ci top moy le Sénégal oriental. fi fer beeg or nek yooyu. waaw fi fer beeg or ay karité nek fa. ay ñu mun bay coton fofu nonu am ay parties yu am ay ndox yu bax et tout ça. ñom bi si topp Casamance euh ñom ñoo occuper la 3e place. en termes de ressources ak lan lañ fa mëna def. voilà légui nak au niveau de la Casamance luñ ñu fa gën a mën a def moom mooy euh, produit yi nga xamné ne dañu joggé ci forêt bi. mun naa wax bois bi xam nga bois bi ci lañ mën a defaree lu ñu naan ay cure-dents. ci lañ mën a defaree ay papier. Mhm. ci lañ mën a defaree carton. ci lañ mën a defaree menuiserie industrielle. ci lañ mën a defaree bois à jus yi ay euh, euh, kii yu jetable yeeg yooyu yëpp yëpp. yëpp mun nañ ko defaree foofu noonu dëgg la. léegi nag mun nañ fa defaree tamit euh, comme produit. forestier yi am na yoo xam ne ne mun nañ defar ay huile nañ par rapport ak racines yi ak euh, euh, chimie bi industrie bi kii bi nu mu tudd pharmacie yeeg yu bëri mën nañ ko fa defar euh, jus de mangue yi jus de madd yi ak ditax yeeg yooyu noonu yëpp biñ ko xaymawee bi ñu waxee ne ne suñu defaree diggante Ziguinchor Sédhiou

mën nañ leen bañ a jaay produit fini mën nañ leen bañ a jaay produit fini bi yéen a xam li ngeen ciy def mais ñun ñoo koy kase ñooy defar yeneen affaire yu ndaw a ndaw yi yéen da ngeen di yeggal yegg seen dëkk ngeen conditionné wala li ngeen def yeneen ak yeneen mais ba ci ba lakk lakk affaire yi ba génne ko ñun mën nañu côté boobu tamit di leen ko di leen ko di leen ko di leen di leen ko jaay léegi nag li nga posé yépp li nga wax lépp lépp lépp dafa am lu ma ci retenir mooy

pour permettre produit bi ak nit bi ñu mën a jaar fii euh, ñu en sécurité nous mën a nekk foo xam ne ne euh, day baax dinañ fa am avenir exode rural du am yeneen affaire yooyu yëpp du am le développement territorial nag moy ressource bi am chaque territoire nga développé ko pour que mu mën yor territoire boobu noonu mooy mu mën a yor emploi yi fiscalité wu collectivité locale yi xam nga dañu am des fois ay collectivités locales yu yeewu ne ñoom dañu am problème pour fay seen salaires, yi dañu am problème pour investir fii pour def lii euh, mu lay won ne nag dafa am état am li ñu secteur privé euh, si plan bi aussi tamit ñun dañ ne suñu secteur privé bi dafa faible euh, gis nañ nit ñu bëri seen investissement yi si si production rek la yem si la ñu waxee woon na nag euh, nañu xool ak jaspora bi euh, def de telle sorte que euh, zone d'activité économique yi ñu wax nañ ko créer un peu partout ñu def de telle sorte que diaspora bi mu bokk ci loxoom dugal ci loxoom mu mën di jigoo li nga wax bu dee ressources yi mi ngi fi bu dee nit ñi ko war doxal li nga wax ñi ngi fi bu dee xarañteef gi ñu soxla pour def ko mi ngi fi lan moo tax defuñu ko. non euh, il faut que ñu valider plan bi. waaw ah. suñu valider plan bi ba pare ñu top mise en œuvre bi mise en œuvre bi nag euh, mooy euh, partie bi nga xam ne dinañu comme ni ma ko waxee woon si soo defaree soo defaree ay kër di ko joxe par benn. par rapport ak kii par rapport ak ñi nga xam ne dañuy ñëw pour jënd kër tout ça mais li tamit suñ ko paré euh, comme zone d'activité économique yi hmm. ak euh, machine yi ci bëgg pour territoire bu nek ñu def ko comme nonu jox ko euh, investisseurs yi petits producteurs yi ak wa diaspora bi kenn ku millions mu am usine bu ndaw machine bu ndaw am une dizaine vingtaine de personnes yu muy utiliser comme yow ni nga def ubi nga sa ben startup am nga say employé ñom tamit non lay doon pour que ñu dem am liñ ñu une culture industrielle ci biir dëkk ci biir dëkk bi une culture de transformation pour que suñu produit yi eh, ñu mën a dugg ci marché national bi ak marché international waaw mais léegi damay xool aussi ni nga wax nii yëpp pour mu mën a nekk parce que ay rupture yu laaj volonté politique. est-ce que président de la république euh, président c'est un aménageur heure ak da ngay du territoire di wax équité territoriale di développement ou euh, gox d'ailleurs mom moy la seule personne en 2012 qui nga xam ne dem na territoire Program bi sax bi mu defaron yoonu yokute bi ci lolou la joge xamna naa ne jàpp naa ne dal suñu paree parce que euh, liggéey bi ñu warona def yeb ñun def nañ ko euh, li ci des dal moy euh, d'ici quelques mois ñu yi proposition yi de façon définitive en fait jere jeuf Mamadou Djigo. maa sant di la gërëm man ma lay remercier di la sant di la gërëm ci liggéey bu rafet bi ngay def. kon yeen ñi doon sétane ñi ngi amoon mbégte ànd ak Mamadou Djigo tey waxtaan nag yéen ci développement ndax dañoo jàpp ni am réew xëy na politique baax na ci waaye développement moo ko gën ndax mooy yóbbu nit ñi ci kanam maa ngi leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen invité.